Sénégal yëpp maa ngi koy gërëm di ko sant ndax ku ñu dégg rek yaa ngi ci sonn nañu torop nag ci xeex mi te man tu soti ma yaakaar ne ku ñëw di ñaan di ñaan di ñaan di ñaan ba ñu bañ nga xëytu ba teel na mën a moomaat man wax naa leen démb ba bakkan nga mën a maa porté dugal sama doom ci société kon nag ba bakkan nga warul forcé ne dinaa dugg ci seen tool yi ba am leen man nag nun ci suñu bopp tool yooyu dañu koo fekk ci suñu maam ak suñu maamaanaat kon yooyu tool kenn du ñu tax ñu bay ko toxal bu ñuy toxal lool duñ ko def tee duñ ko def suba ndax Babacar comme gan la fi toxu toxu bu ci nekkee moo war a toxu mu yaakaar ne jël fukki néeg toxal ko toxal benn néeg a mu gan yom nu toxu foofu bàyyi leen suñu suuf ñu bàyyi foofu bàyyi suñu suuf bi ñu ñibbisee démb mu dégg ci presse bu mu ne Babacar abal na waa Ndingler suuf loolu dañ koo rus def dañ koo rus ndax Sénégal suñu jàpp leen ñun ñëpp ku jóg Sénégal tey ndingaleer ngay sant di leen gërëm ba peut ma am gan ba peut-être ma am gan ni di ma persité ngor boobu nag du ma ko jéggi mukk mukk mukk mukk dem di Babacar def may daggal fale tool maa ko war a daggal tool mais manumaa daggal tool man ci ñu bopp nag su fekkee nag Macky Sall ci boppam moo koy jox suñu suuf du lu suñu gàcci kon na leen Macky Sall jox ko Babacar Ngom comme moom Babacar Ngom moo ko jàllal askan bi parce que kii Macky daal ba mu defee Omar yu mu defee mitin bii njaaraw kenn desul nun mag yee des ci kër gi naanal jur yi ndax Omar yum mu keroog mu ne bàyyi leen baadoole ak seen tuuf bu ñu waxee loolu def maa neex ba réer yooyu demee noonu bàyyi loolu yëpp teg ci suuf teg ko ci seen rolu dal wax ne nag dañu fokkati rek suñu suuf si ci doole kere bi ñu fa taxawee au lieu sax mu bàyyi lu muy def machine yaa gii def camion di sotti ñuy def rang-rang ci biir tool yi am ñetti rang-rang yoo xam ne dugal na ko ci biir tool yi di yàq tool yi rek ngir néew doole lii moo métti lii moo métti lii buumu njaam sax Euh, moom lii mooy buubu njaam ndax nun yaakaaruñu dal luñu mbéy yaakaaruñu jëm bay luñu mbéy si Macky jëlee suuf soofu nag jox ko ba Babacar Ngom moo xam mais nun dey nangu suñu suuf rek moo gane yom Babacar dagal ñu tool loolu duñ ko def tey duñ ko def tey dema nun démb ba ñu meral sax chef village chef village ñemewul taxaw boobu d'accord ci loolu ñemewu ko parce que dëkk bee ko fal que dëkk bee ko nag mënul taxaw boobu di wax ne d'accord naa ci li ngeen def duñ ci d'accord tey duñ ci d'accord suba bàyyi leen ak lu suuf léegi nag ci gàttal altine bii su passé xam na parti bii su passé ñun ñëpp ñuy mobiliser dem ci suñu tool yi nu nga ñuy def ñu def ñu noonu def jeex ñun waa Ndingler nag ñun ñëpp taxaw nañu nekk benn bloc wax ne Babacar Ngom nañu bay ak sunu suuf adduna wirngal képp kenn moosu la gis koo xam ne dafa taxaw de ñaan nit may ma borom nee la mayu ma mayuma la nga ñëw ne jaay ma kooku nee la jaayuma la nga ñëw indi xaalis bi ko ko woon boroomam bañ nga jékki-jékki ñëw ne am naa bàyyi ci sa biir tool am naa titre foncier ci biir tool ñun day jàng ñu waaye lu ñu déggoon titre foncier balaa nga koy am fi ngay jaar ba am ko est-ce que Babacar am jaar na foofu Ndingler bokkul Sinja Sinja bu mu ko joxee lu mu ko jox ba pare moom ci boppam moo waaxoog tànkam moom Babacar Ngom ànd suu sous préfet biñ fiisel mbaadaan ànd ak sunu Gana Ngom Gana Ñing mu ñëw fii Ndingler ne Sindia def ma délivrer euh, trois cent hectares mais moom bi ma nattee dama gis 80 hectares yoo xam ne bokkul si nja ci yéen la bokk ma ñëw leer nag pour di leen ñaan 80 hectares yooyu ngeen jox mu ko sunu chef de village bi ala l'époque ko doon wax léegi ne ko loolu mënu la am tey mënu la am elek waa ndengaleer yépp a nga ni heu. suuf lu ma xew xew xew xew xew amul benn meetar suuf ba waa Ndengaleer jaay amul adduna yëpp ngi jaay suuf mais amul benn doomu Ndengaleer ba jaay benn meetar suuf benn meetar laa la wax benn meetar amagu ci gis nga li ngeen gis fii yëpp waa Ndengaleer ñoo ko ñàq béy ko état bii fa toog léegi muy Macky dëpp bu muy wuuti réew mi benn ko ko yàlla joxe saa yi su wotee fii 100 pour cent lay gagné fii Sandoog amuñu député ci état Macky Sall amuñu fi euh, euh, amuñu benn autorité boo xam ne mën nañ taxaw di ministre du du euh, kii ci commune Ndiaga ñaaw yëpp amut waaw tool yi kon ba fekkente dafa bugg a ñëw nangu suñu tool yi fan la ñuy yóbbu te dara ngir yalla ak yonent bi waxuñu ken man da waxuma ken Macky Sall ci bopam lay waxal le président Macky Sall moy nangu sunu suuf di ko jox Babacar Ngom Macky Sall moy nangu sunu suuf di ko jox Babacar Ngom ministre de l'intérieur bu mu fa yoni dembu ñew diñu imposer imposé ne kenn ku nek na nat tolam numu bu noppi bu ko nattee mu door a dem vale Babacar Ngom dagal ko foofu lu toll noonu muy béy ba déwén loolu defuñu ko tey defuñu ko ëllëg defuñu ko du dee defuñu ko du dund nangu wuñu loolu te duñ ko nangu bu mukk kenn ku nekk lum ko nattal toolam la na ko ko jox ne Babacar Ngom bayil yëfe jàmbur ñeen fukki nit ak nangam nga toxal leen kay toxal benn nit nga ne yomb dégg naa ñuy wax bay wax ne ndengaleer diggante ndengaleer ak tool yooyu 6 kilomètres la ak nangam loolu wax dëgg daanu sareet sareet la Babacar Ngom fu mu jógee fu mu jógee ñaata ñaata kilomètres la fan la dëkk ñun xamuñu ko turam la ñu doon dégg ba xëy xëy gis ko mu daanu sunu kaw su ne maam yi maamaat soo demee seen penc yaa nga foofu mën nañ ci lim ñu bari bari bari bari bari waa jiyaax ñi naan ñoo ko moom ñoom ñëpp pour yi ñu bugg lim xam nañ leen xam nañu kan mooy góor gi jàgg sakul dëkkul jilax ndengleer gii la dëkk xam nañu kan mooy góor gi sombel muri dëkkul foofu ndengleer gii la dëkk xam nañu ban góor gi mooy euh, euh, euh, muram dëkkul jilax man nañ ko lim be mu ëpp ay fu ay dizaine ci sunay maam mais dama koy gàttal foofu rek ñoo doon béy foofu ba jóge foofu ndox jafe ñu dellusiwaat ci biir dëkk bi te teewul ñuy béy foofu. ngir tënk rek wax ji mooy waa Ndengeleer lu ñu ne dañoo dañ leen abal suuf ñoom abuñu suuf tey abuñu suuf suba ñaareel bu mooy. suuf si nga xamante ne dañ leen toxal yóbbu leen ci yeneen suufu jaambur bokkul ci suñu commune ñun suuf si nga xam ne moo bokk ci suñu commune moom la ñu bëgg jot moom la ñuy réclamer parce que loolu piège bi garaaw moo ci nekk tey Babacar Ngom bu fekkee dafa toxal waa Ndingler yóbbu leen ci commune Sindia suba ak ginnaaw suba day taxaw ne ñoom seen suuf yegul fii te ñun nag dañoo am suuf si nga xamante ni suñu commune la la bokk nit ku nekk li nga am moom ngay réclamer gis nga dilatoire bu nekk ci négociation yi dafa wara jeex te dama yaakar ne bo ñëwee ngir waxtaan nga ne da ngay def médiation moy d'abord da nga war tok ak nit yi déglu leen waxtaan ak ñoom nee leen leen lan ngeen proposer ñu waxal lu ñu proposé yow bo amé li nga leen proposer nga wax leen ko bu fekké d'accord nañ ci ñu and bu fekké d'accord ñu ci ñu and waye jekki jekki jog dem ci tool dem du nat lajo ken lajo ma dem lajo ma samba loolu de négociation ba paré nak nga dem ba paré nak nga dem ci presse bi di nan babakar Ngom dafa abal wa ndengaler pour ñu bay ren ñun ren taxul ñu réclamer ñun luñu abdan abadan mo tax ñu réclamer lool nay leer lool dafa am solo lu ñu wat moy tay babakar Ngom depuis kañ la jël suuf soosu ta ah, pourtant am na am am portion yi nga xam da koy da koy da koy luye wa wa Plan Reva est-ce que loolu wax na ko ci presse bi kon donc wax ji c'est-à-dire euh, wante da ka fa jarut. en tout cas ñun lu ñu gëm gëmuñu Babacar Ngom état la gëm gëm nañ aussi état moo ñu mun a ak Babacar Ngom ñoom lu ñu baagan fii yëpp jar ko ñoom mun nañ toog si fu ñu toog ci seen bureau yi atte ñu ak Babacar Ngom dellooñ suñu suuf loolu lañ soxla soo déggee Babacar di wax wax suufa Ndingler tey c'est que dafa am lu ko indi te lu ko indi vraiment mooy que diggante commune si Sindia ak commune Ndiaganiao kenn génnewul frontière bi de façon officielle parce que su xamoon rek fan la Ndiaganiao yem ak fan def euh, seigne njëyam vraiment man nañ xam kan mo nek ci suufu kan en 2010 dafa am ben euh promoteur bu ñu doon wax Awsu drame dafa ñew wa seigne dagal ko ci suufu ndeng leer ci biir nawet bi mu jël ndeng leer yu ñu amone jamono yo yak leen complètement mo Awsu wa ndeng leer jog tension monter préfet ñaan waa Njagañaaw ak waa Sinja nañu ñëw génne frontière bi sous-préfet Fissel ak adjoint sous-préfet Sinja ak man mi vice-président communauté rurale Njagañaaw ak vice-président communauté rurale Sinja ak euh, ñeneen ñi ñëw tase fii ci terrain bi ñuy wax ni ci tool yi ñuy wax ni pour génne frontière diggante Njagañaaw ak Sinja mais buñ ko defee waa Sindia ñu ngi doon négocier pour ñu mën a valider lu ñu dagal Aouz Dramé ci tuuru waa Ndengeleer man mi ñu nee ma pour ma signer ko man mi ne leen dum ko signer parce que nag mënu leen bay ba nawet ñëw ngeen may jàmbur ci toolu jàmbur yi mu yàq leen ba pare ngeen ñëw bëgg ma valider loo man mi signer ne frontière foofu la jaar boobu ba léegi nag frontière bi kenn réglé wu ko kenn nekk ñibbi dëkkam ñu affaire bi yem foofu Gawsu Dramé bobu sax na ont paysan dédommagés yu nga xam dañ seen tool ci nawet bi 2 millions 500 000 mais waa ngi ni ku ci fu fa amul kenn ku ci jot 1 franc ba léegi xaalis war nañ wax carrément parce que xaalis boobu mu ngi arrondissement Sindia ak arrondissement euh, Fissel problème bi la même année 2010 ñi jël Babacar mayaat mais Babacar dañ ko may ma empiété ci suñu souf manam souf wa ndengaler bi empiété également ci suufu wa Sanjara jëloon na ci wa Sanjara sax 50 hectares wa Sanjara budi di borne yi sanni len wa ndengaler budi sen borne aussi sanni len Babacar dem négocier ak waa Sanjara pour ñu nangu ñu def partenariat mais wa Sanjara finalement dañu len soxlu wuñu xaliss soxlu wuñu partenariat ñun suñu souf la soxla bayil ñu suñu souf mu bay cinquante hectares yooyu mais comme xamoon na litige diggante Ndiaganiao ak Sindia am na te suñu woowaatee waa Ndiaganiao maanaam bu ñu dëkk Ndingler dinañu bañ moom ñemewul woon woowaa Ndingler mu noppi dem ñibbi 2012 ñu délibérel ko ci suuf soosu encore 2012 lañ def délibération bi mu jël délibération boobu nag jaar ca suuf di def ay tractation pour ñu defal ko baay defal ko également titre foncier entre 2012 et 2019 la am yëpp fexe na ba am bay am titre foncier waa Ndingler yeguñu ken mosul len wax ne waji ji lu muy dox ci souf sen souf lay lijjante pour am ci titre foncier bu ko amé nak le dor ñew ci waa Ndingler di len won ne si dañu wara d'accord ngén al mak ngén bayil mak parce que dem ci am kayit réellement affaire bi non la démé bon dafa nobutu dem wuti kayit président de la république ba eh, kii wax léegi ñu ñu ñun amuñu leneen luñ ko wax parce que moom aussi suñ ko présenté di faux peut-être erreur foofu la mën na nekk rek mais du ci moom mën nañu présenté président de la république di faux ba ma signé ko Babacar ak ñu nekk digganteem ak président de la république ñoo monté seen système muy lu nga xam ne dañuy dem bu maye joxe signaloo président de la république un titre foncier ci terre yu nga xam ne amul parce que soo demee may nit ki wala nga jaay ko fu nga xam ne amul mais justice war na ci wax justice war na ci wax waa Ndingler seen suuf euh, fu mu yem mooy commune Ndiaganiao fu mu yem ñoom dugguñu ci commune si Sindia defuñu ci dara ñu ci leneen lu bon nañu yem fu ñu war a yem distance bu ñuy wax am na ñu ko wax léegi distance lu ay wax caaxaan la waa Ndingler foofu la ñu dëkkoon dañu toxu si fii rek fu nit ki toxu si nag fu nga xam ne def fu tox fu daan béy soo toxoo itam mën nga continuer di fa béy. Après, euh, les démarches des, ministres de Karim Fofana et les ministres Ali qui ont tenté de désamorcer la bombe, comme vous le dites, vous les journalistes, même s'il n'y a pas une bombe ici. Nous, nous comptons sur nos positions qui, depuis le départ, n'ont pas encore changé et ne changeront pas. Nous ne céderons pas d'un iota sur nos terres, que ça soit clair devant l'opinion, que Ndengler et déterminé, et debout et jusqu'à la bout, jusqu'au bout du moins, qu'on nous arrache nos terres ou bien qu'on les restitue, nous resterons dignes. Nous ne céderons pas. Nous sommes un peuple fier et nous le resterons. Nous n'avons pas, nous pas cédé devant le pouvoir de, de l'argent, on n'a pas été corrompu. On n'a pas été amadoué. Parce que ce qui se passe réellement, c'est nous avons l'impression que nous ne faisons même pas partie du pays. Comment se fait-il un seul homme dont le seul mérite est d'être l'ami du président ou bien d'être dans le camp du pouvoir Et nous, notre seule faute, notre seule faute est d'hériter des terres, de les exploiter, de les cultiver et donc de rester dignes devant la corruption. C'est la seule faute, la, faute des villageois, c'est de rester dignes. Maintenant, ce qui se passe, le chef du village l'a dit, les membres du comité l'ont dit, nous lançons un ultimatum au ministre Ali Ndiaye qui nous pensons qu'il n'est pas de bonne foi. Parce que s'il l'était, il aurait proposé une solution qui est différente de celle qu'il a proposée. Et nous, nous disons même que ça, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution, nous le prenons comme étant une décision unilatérale du ministre de venir, de faire des mesures par-ci, par-là. Et là, ça ne nous concerne pas, ça ne nous engage pas. Le ministre, il n'a qu'à faire ce qu'il veut avec les services qui l'accompagnent, avec les géomètres qui l'accompagnent. Il n'a qu'à mesurer ses terres et partir et repartir. Mais nous, nous resterons sur l'Ocha. Et l'ultimatum année que le chef village l'a dit, où il a lancé ce village, il a dit, il a précisé que qu'après le lundi, les paysans vont retourner sur les terres, quitte à ce qu'ils y retrouvent, des, des nervis armés, quitte à ce qu'ils retrouvent des gendarmes, mais ils, ont, ils sont décidés déterminés à cultiver leur terre.